damay ñëw ci fan yële woon jaar aéroport ñu sàcc sama benn téléphone ni ni ñu ko sàccee ne moo ma naqari sax moo tax ma bëgg koo moo tax bëgg ku ma ko jàllale parce que teg sama téléphone ci tapis bi waa ji ne ma tegal sa bagage fii may sumi montre beeg téléphone bi yëpp teg ci kaw kii mu jaar ci machine bi jàll ma jaar fee jël leen li fàtt téléphone bi dem ñaari même pas deux minutes ma wañu ko waat ñëw gisuñ laajte téléphone ñu ne ma gisuñu ko ma wax wax ñu ne ma gis ñu téléphone bi ben ma ben way ne ma jox ma numéro ma jox ko numéro mu kóol benen numéro ba mu yàgg lool mu door ma joxal ma numéro ma joxal ko numéro mu kóol ne ma tëj nañ ko feneñ téléphone bi demal ci caméra yi ñu seetal la ko ma dem ci caméra yi police bi xëpp ma coow nangu ma nangu nangu sax seet ne ma ñu nekkoon ci di téléphone loolu moom police yi wax chef police bu fa nekkoon loolu ma wax keroog nanguñu seet ay duñu caméra bi lu lu am importance moo ko tax a jóg mais di seet ay téléphone taxu koo jóg daal ma nekk fari coog ñoom coog waaji na ma li ngay wax caméra yaa ngi koy jàpp ma ne ko na ko jàpp man li may wax nëbb moo ko te bi muy ñëw sàcc nañ sama walis fi ko jël jël ci dara ay pat daan dafa yëpp sàcc nañ ko sàcc nañ ko sama walis bi may ñëw loolu teguut fenn dafa dañoo xam ne damay dem rek waaye bu fekkoon ne boobu nekku may dem moom danaa ko topp bu mu sës waaw waaye nag comme maa ngi dem ab téléphone bu ma jaralee ma tardé wol bi di fay ay deux cent et quelques mille kooku du ko jar jaraluma ko loolu lañ xam rek mais bu fekkoon ne damaa càppaloon Sénégal booba tey sama téléphone du demee noonu danaa ko toppoo ñu bu mu sës ba ñu ñu ma ci dara laa ci dara laa ci bañu loolu daal laa bëgg nga jàllale ma